asalaamaaleykum waa RTT TV maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëpp muy euh, waa Ngaparu euh, waa Thiès ñëpp ñëw fi tey ci jigéen ñi euh, assister ak waa Sindia waa ñëw assister ci réunion comité directeur bi nga xam ne waa Mbour ñoo ko organisé mu doon loo xam ne lu ñu neex ak lu ñu yàgg mbébét parce que ay tailleur suñuy dajaloo ku ci nekk nekk ci sa gox nekk sa localité te ñu bokk métier bi muy ñaw kon laaj na ñu def lii ci région de Thiès tey ñu regrouper trois départements yëpp ku ci nekk ñëw teew teew fi ak sa sa membre bureau pour ñu former seen commité directeur buñ fa jugee dem Tivaouane ci département de Tivaouane buñ fa jugee ñëw département de Thiès ndax euh, fédération boobu dafay am solo ci tailleur yi ndax xamante bi day gën a yokk doole ndax ku ci nekk mën ngaa toog ci sa gox toog ci sa biir atelier di nga am gaa mais jàppoo bi dafa gën a am solo ndax naan benn say yomb benn euh, bant yomb naa damm mais boo nekkee say yaakaar naa ne damm leen du du du yomb loolu daal moo ñu fi gën a ñëw euh, moo ñu fi gën a indi tey ci euh, fii ñuy wax Biguinvilliers bu Mbour initia initiateur bi nag nekk le président Moussek parce que président Moussek moom ku ko xam-xam ne ci fédéré rek la nekk ci bëgg regroupement de tailleurs de la région de Thiès parce que ñun bi ñu bokk mooy tailleur département bi bu regroupé nag quatre départements yëpp day nekk région de Thiès te région de Thiès ku ko xam xam dëggoom xam xarañceem xam bëgg réussite ba nga xam ne tey jii daal loolu moo ñu fi indi ñuy ñaan yàlla nag euh, mu doon loo xam ne dañuy dem ba ci suñuy sët ñu naan wax dëgg yàlla ñii tey jii ñoo fi toogoon ñoo ko def ba mu egsi fii ñu ciy ñaan réussite totale waaw waaw ñoo ngi ko commencé tey jii ci Mbour après dañuy dem Tivaouane après dañuy ñëwaat cees ñu door a def nag euh, régional bi euh, waa loolu dëgg la te pourtant dañ leen di ñaax mais xale yi dama defe ne dañoo dese ambition parce que wax dëgg yàlla boo gisee ay mag di dox ñun depuis 2009 ñoo ngi ci man ak ay dafa ne dugg nañ ko ci Sénégal te ba tey ñoo ngi ci kon ñoom bu ñu xoolee ci ñun xool ci ñoom euh, euh, Ndiaga Wade xool ci ñoom président Moussek président Moussek bi muy nekk euh, secrétaire général adjoint xale la woon tey ji daf ko liggéey ba nekk président kon boog xale yi ñoo war a xool ci mag ñi nga xam ne ñoo ngi dox xam ne lii ñuy def nii ñoom seen avenir la ñun peut-être suñuy wàll weesu na parce que ay mag la ñu léegi lii ñuy liggéey ñoom lañ koy liggéeyal kon boog may lancer un appel di wax les jeunes ñi nga xam ne ay ay ay ay ay ay artisan lañ nekk ay tailleur surtout nañu jege si regroupement des tailleurs de la région de Thiès parce que gisuma ci lu dul njëriñ njëriñ rek laa ci gis parce que da ngay xool koo xam ne euh, région de Thiès da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw jege si euh, Abdou euh, kii Abdou parce que c'est un professeur te moom dafa dafa dafa mbappat ba jaar fii njaasekaay dafa mbappat ba jaar fii parce que dañ doon dem ci formation yi ndànk-ndànk ba léegi tey ji macha allah fu ñuy woote ci Sénégal woo leen ci kon bu xale yi nañ jege si regroupement des tailleurs de la région de Thiès parce que seen njëriñ la. mais ma chérie loolu à la la faute à qui parce que ñun regroupement des tailleurs de la région de Thiès dañoo am groupe WhatsApp boo xam ne lépp loo xam ne day génn muy formation dañ koy dugal ci biir groupe bi ku intéressé ñëwal xaw ñu amuñu ak seen. kon boog jeune boo xam ne dangaa toog sa ruq ne man kat formation bi intéressé wu ma yaa ngi ci erreur bu mag yaa ngi ci erreur bu mag kenn du dem nag si sa biir di la foqati di génn di ñëw mais l'essentiel information dina jàll à temps réel que ne kat formation am na ñun bu ñu sanoon jeunes yi ñooy ñooy ñoom la ñuy former parce que jeunes yi ñooy avenir bi mais nag jeunes yi vraiment li may njëkk wax rek mooy seen ambition dafa xaw a des parce que ñoom dañoo defe ne suñu mënee ñaw tay jeex na suñu mënee ñaw costume africain jeex na te dafa am ay sew-sew yoo xam ne ci costume africain ku ko mën dëgg ak ku ko ku koy ku koy jàngantu du benn boo ko xoolee rek président Ndiasse sol mbubu nga gis président Abdou Wade sol mbubu di nga xam ne ñii c'est des professeurs ñaw yi dafa wute costume africain dafa wute ñu tàllal kii tàllal rek nga xam ne bii moom c'est la classe kii mën nga ko sol dem ci président Diomaye bii fii la yem kon boog loolu mooy jàng bi xale yi nañ ñëw jàng si métier bi ñoom dañoo am chance boo xam ne ñun peut-être amuñu ko woon bi ñu nekkee kii parce que ñun ci atelier yi lañ jàng mais ñoom am nañu chance ñëw fekkee école de formation yi ñëw fekk professeurs yi nouvelle technologie am machine yu baax yi am mais lu ci des volonté moo ci des kon bu xale nañu génn ñëw jàng si métier moo ci am solo. waaw maa ngi leen di fay euh, di nuyu waa Sénégal di nuyu la région de Thiès particulièrement département Mbour bi ñu nekk tey pour. ñëw ci def benn rassemblement boo xamante fédération euh, yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci module textile moo ñu tax a ñëw tey euh, initiateur bi nekk suñu président Mamadou sekk ndax dañ ne union fait la force dañoo war a boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy jëfin ngir mën a avancer loo secteur bi ndax yaakaar naa ne bu ñu tasaaroo li ñu bëgg xale yi xam ko du duñ ko mën a xam donc loolu moo waral ñu ñëw tey jii ci mbuur Euh, rassembler képp koo xamante ne yow yaa nekk ci sa gox muy les responsables les présidents ak ñi nga xamante ne ñoo ñëw représenté président gox ya ñu nekk ci région de Thiès ñu ñëw waxtaan ak ñoom pour fédération bi ñun ñëpp ñu àndandoo doon benn euh, avancé loo secteur bi loolu moo ñu tax a ñëw tey. waaw la présidente wax na ko léegi dafa am loo xamante ne euh, nit ki mooy am volonté boppam. Euh, regroupement des terres de la région de Thiès yaakaar naa ne depuis 2009 da sa dafa rassembler képp koo xamante ne yaa ngi ñaw ci la région de Thiès ñun ñëpp yàlla def ñu xamante. muy Mbour di Caajaay di Tiwaawan di Mbooro li war cees daal macha allah donc xale yi ñoom ñëpp aussi li ñu mën ñoo ngi koy def ci ñoom di leen indil formation yi pour ñu mën a former parce que nouvelle technologie bi ñaw bi dafa changé te dafa avancé donc boo ci bëggee liggéey loo xamante ne mën na laa jëriñ foog aussi ngay topp norme yi pour nga mën a liggéey fi jamono toll. mais nag dafa am loo xamante ne bu ko nit ki xamul war na koo mën a. Euh, yeewu ci euh, nouvelle technologie bi parce que toog sa sa place taxul nga am li nga bëgg parce que wax nañ ko léegi dafay dem ba benn moment war a toog xaar sax client da ngaa war a mën a dem defar loo xam ne client bu ñëwee ci saa si nga mën koo satisfaire ci li mu bëgg parce que nit ñi tamit amatuñu temps li américain yi di wax time is morning temps temps bi tamit dafa cher dañuy bëgg dem léegi xew ñëw léegi jënd sol dem amatuñu temps dem jënd tissu di ñëw di ñëw lu di xaar donc loolu aussi fokk xale yi am motivation parce que liñ ci mën ñoo ngi koy def comme ni nga ko waxee jigéen ñi aussi def nañ du du tout ba ñoom ñëpp ñuy rassemblé wu suñu présidente Néné Diakhaté wax na la ko nga gis ñi nga xamante ne ci Mbour ak ñi nga xamante ñoo nekk fii ca euh, Sindia ñoo taxaw nii des dafa am euh, rencontre yoo xamante ne euh, tête de file yi ñooy ñëw donc bu ñu paree dem à la base informer leen donc ci loolu aussi tamit mu ngi am tuuti avancement parce que des fois tamit nga gis leen ñu génn mais dafa baax ñoom ñu gën a génn parce que nit ki li ngay liggéey aussi foog nga ciy gëstu foog aussi doo ci tayal parce que jamono gi foofu la toll da génn ci biir place yi dem pour am xam-xam ñëw indi ko développer li ngay liggéey mais yaakaar naa ne ñoom dinañ gën a comprendre parce que moo waralu mel ni parce que ñi nga fi gis kenn ku nekk si sax gox nga représenté pour ñëw bu ñu delloo ca gox ka dinañ woote réunion ñoom ñu toog ñu gën ko développer parce que bu ñu paree fii dañuy dem Tivaouane bu ñu jógee Tivaouane ñëw def daj dëpp sur la région de Thiès euh, le président Mamadou Seck mu daal di koy euh, clôturer sur la région de Thiès parce que moo boot région bi yëpp donc loolu moo waral lu mel ni te yaakaar naa ne ñoom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk dafa fekk nag am na loo xam ne bu la dul xaar da ngaa war a gën a gaaw ci liggéey bi parce que temps bi tamit euh, xaaratul yenn yi donc loolu daal la ñuy conseil xale yi ñu jóg gën a yeesal xam-xam yi parce que liggéey bi dafa avancé fi nga yaakaar ne fa la toll romb na ko te aussi boo bëggee génn ci dëkk bi aussi foog nga xam aussi normes yi foog nga xam ni ngay jëflanteeg nit ñi parce que dëkk boo dem am na lu mu bëgg loolu aussi euh, dolli xam-xam la bokk foog ñuy génn di dolli xam-xam yi génn di bokk ci te nit ñi lu ñu leen wax aussi ñu ciy ñu ciy gëstu da ciy baax daal loolu moo war a rencontre bu mel ni ñu di ko def parce que dañuy wax informel nous ne sommes pas des informels on est très formel dafa fekk ne euh, li nga xamante ne ñoom li leen li leen war ci yëf yi tayal googu moo waral ñu ñuy teg aaraat te loolu yaakaar naa ne jeex na ndax jóg nañu def benn fédération boo xam ne ñëpp lu waaye xamul dinañ ñëw ànd ak yow dooleel la ba li nga bëgg xam ak kayit yi nga amul ñu dooleel la ba nga bëgg nga nga am ko marché yi nga xamante ñu ngi ci dëkk bi ñu jàppale la xamal la yoon yi loolu aussi tamit euh, yaa fus du ko def fokk aussi ñoom ñuy jege ñi nga xamante ñoo nekk ci seen secteur yi pour ñu jàppale leen ci loolu moo waral rencontre tey bi waaw ku xam tey xam ne candidat yi bari nañu wante dañ ne on change pas une équipe qui gagne te yaakaar naa ne kuy def ay résultat ak jàmbaar buy liggéey neex na xàmmee te yaakaar naa ne euh, jiite tëyeer yi du lu yomb kon boo demee ba ñu lay renouveler c'est parce que am na loo xam ne convaincre na leen te lim ñu convaincre mooy li ñu wax xale bu ndaw la bi muy nekk ci regroupement bi dafa doon mën nañ ne kuñ daan yónni la kon def résultat moo waral tey. ñu élire ko élire ko ko pour mu gën a liggéey te liggéey boobu du ci wéet ndax ñun ñëpp dañuy ànd ak moom jàppale ko ci parce que nag vraiment euh, jeune la ñu soxla un jeune très dynamique un jeune très posé et ndax nit nag soxla nañ ci yar ak daal te yaakaar naa ne am na ko kon loolu jarul changé war na ñaaxaat dolli ko fu jom gën koo gunge ba mu ñeme fa mu jëm yaakaar naa daal loolu moo waral ñu renouveler ko parce que li mu liggéey daal ah rafet na trop macha allah. non da ngeen di dem incha allah parce que lii yaakaar naa ne ñun rek ñoo ko am kon dafa jaadu saa ñuy bouger da ngeen ñuy topp incha allah loolu moom bokk na ci carnet bi liñ ci bind ci biir kii bi incha allah fu ñuy bouger. ku mu munti doon lu mu bari bari ñaari personne dinañu topp ñu daal dem bu soobee RTT TV international merci beaucoup <laughs> salaamaaleykum waa RTT TV maa ngi leen di nuyu di leen man la Mariama Seck eh, vice président association des couturiers bu Sindia nekk eh, représentant wu FENAF aussi ci département bi ici à si dans le département de de Mbour. ñu am contentement dalal tey suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñoo jóge Thiès suñu nee département. Euh, région wa tax maanaam région mooy boot département donc suñu upline suñu ñëwee tey ñu ñun ñu war leen dalal ñu dañ ciy kontaan ku xam métier couture nga xam ne métier bu am solo la ci département de Mbour parce que bokk na ci métier ci gën a gën a taxaw ci département bi donc ñun ñu ci nekk di karang-karang di ci di ci jóg daanu ba tey ñu war a dalal suñuy suñuy suñuy naataango yoo xamante ne ñoom ñooy suñuy upline parce que ñoom ñoo jógee région ba ñëw loolu lu am solo la te ma kontaan ci lool ci le fait que ñu bëgg a fédérer les département ci côté couture ndax loolu il est venu en son heure je me dis parce que loolu lu wa lu kenn man ñaar xam ñaar a ko ko dàq ni ko wolof di waxee je suis séeréer je comprends pas beaucoup wolof <laughs> donc lu kenn man ñaar a ko ko dàq donc lii dafa ñëw à son ñaw nag bu yàgg dafa toll woon ci moment yoo xamante ne man ak Aida du ñu laale kii Aysatu ak keneen du ñu laale dañoo weesu foofu. Mm. ku nekk da daan yem ci atelier wam ku nekk di jéem a gérer. ça ne nous mène nulle part. Mm-hmm. système boobu dafa démodé actuellement ñu ngi toll foo xamante ne dañuy numériser li ñuy def ñëpp di ko gis mm-hmm. ñuy ñuy ñuy collaborer di jéem a formaliser. lañ toll ñuy lancer un appel à toute génération génération bu ndaw bi. ñoom ñoo war a jóg ñëw fekk si génération bu mag bi ñun mënuñu dem fekk si leen ñun ñii ba ñuy daw di topp ci suñuy mag fekk ñun ay lu tuuti lañu ca la ñu nekk ba tey jii donc du ñun ñoo war a dem jëli leen mais ñoom ñu war a am motivation wala maanaam am vision wu dem fekki lii leader yi nga dem topp leen parce que euh, tubaab dafa wax ne wax ma kan ngay kan mooy sa xarit la kan ngay kan ngay kan nga doon voilà donc dafa jot ci ñoom ñu dem a xool ñan ñooy doxal mode bi ñoom ñu dem ñu ñu ñu accordé wu ak ñoom de ce fait bientôt ils seront des des leaders comme comme comme comme comme tout le monde waaye euh, comme ni ma ko waxee sànq je suis séeréer saafen mi kañ saafi ci tout euh, saafi saafi bo na ina hada fina ne wa diggante région de Thiès rek wa wa yem maintenant bo kap bu ni nga wàllu artisanat da bo bo war euh, gërëm ñëpp nga <laughs> di sant ñëpp waaw maa ngi leen di maa ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum képp ku fi teew rek di wax ne macha allah tey dañoo am mbégte am contentement vraiment si euh, waa Kees waa Mbour waa Tiwaawan tey ñoom ñëpp ñu ngi fi ñuy wax ne fierté boobu macha allah kontaan nañ si ba li ñu bëgg a wax yëpp sax mën nañu ko wax di wax ne dañoo topp si ginnaaw ñoo xamante ne macha allah doon ay mag yoo xamante ne ñu jar a topp nañ parce que métier bi dafa doon loo xamante ne dafa am ouverture ouverture bu yaatoo yaatu boo xamante ne ni ko suñuy sœur waxee rek ñun noonu nañ koy waxee daanaka wax nañ lépp suñu contentement daal nañuy firndeel di wax ne daje bi ñu daje fii macha allah ñun duñ si am réccu kon dañuy woo bépp jeune boo xamante ne nii rek ñu ngi si métier bi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen lancer appel di leen wax ne ñoom ñëpp nañu ñëw topp si ginnaaw ñi macha allah di wax ne artisan daal doon na loo xamante ne nii euh, ñoo gën a taxaw si Sénégal daal kon ñun li ñu am. bu buñ ko kafee ñu ko caaxaane ñu ngi lancé appel si ñëpp nag macha allah di am mbégte ak contentement si yéen ñi ngeen xamante ne tey yéen nañu introduire macha allah kontaan nañ si ñëpp. vraiment parce que booy xool macha allah parce que booy xool tey ñun ñu ñëpp ay euh, représentant nañ kenn ku nekk dafa am ñu bootu say ginnaaw mm. kenn ku nekk tey yaa ngi yor association. boo xamante ne mu ngi si gin mu ngi sa ginnaaw comme ni ko nen ne waxee sànq rek Aïssatou wax ko boo demee tey jii réunion ngay woote mm-hmm. wax li nga xamante ne moom nga fi jëlee yaakaar naa kon ouverture boobu moom la jeune yëpp war a mën a bàyyi xel war a mën a ñëw surtout les femmes nag surtout les femmes nañu gën a yokk Pastef gën a am jom gën a xam ne daal artisan daal c'est le métier noobu noobu la daal <laughs> on est doon noobul macha allah kontaan doon rafetlu tamit euh, coordination régionale bi nga xam ne nii ñu ngi ko doon taxawal tey fii ci Mbour muy premier bureau bi nga xam ne nii njëkk nañ ko taxawal muy bureau coordination parce que ku nekk xam na ne regroupement des tailleurs de la région de Thiès euh, muy regroupement bu am solo yàgg di liggéey li région bi bàyyiwuñ benn département boo xam ne nii bu nekk ci biir région de Thiès la tey ñu commencé woon taxawal bureau Thiès te ni ñu taxawalee bureau Thiès ni ñu leen fiy jógee dem Tivaouane dem Thiès dem lu wër région bi yëpp parce que it euh, bëgg nañ tout les tailleurs du secteur ñu koy rafetlu nag parce que tailleurs yi feeñ fii ci département bi tey du waa Mbour lekk parce que boo xoolee commune bi li ko wër lépp ku si nekk sa président ñëw na sa secrétaire général ñëw na te ñoo ñu boot nañ mbooloo yoo xam ne kenn xamul ñu mu toll ñuy rafetlu tamit lii parce que it euh, bu ñu nekkee ay tailleur doon ay ñawkat ñu ànd lekk mooy tax ñu mën a dem parce que ku nekk bu njëkk doon daw ci temps yi ñu ginnaaw kii naan fii bokk kii naan fii laa bokk kii fii laa bokk man du ma nëbb ah président Macky bi muy soog a toog woo nañu wax ñu li mu bëgg def jam ñaajo présidence woo ñu wax ñu li mu fa bëgg a def wax ñu machine yi mu fa war indi ni ñuy exporté bi dem ak waa ak yëpp ay tout mais problème bi amoon mooy téeri ñàkk ànd ak groupement yu bëri te it région de Thiès foog naa ne wane na yoon bi parce que région de Thiès mooy région bi nga xam ne nii moo njëkk a jël ay doomu xam képp koo xam ne nii donc yaa ngi def ñaw ñu boole ñëpp ñu nekk benn parce que foog naa ne ku xool mbooloo mii ku si nekk nekk président parce que jëluñu kii de ku si nekk président nga wala ñu yónni secrétaire général wala ab association yónni la waaw ñu koy rafetlu trop di ñaan yàlla ànd bi mu gën a jub gën a mais nag président Seck ñu lay féliciter parce que lii bu amee vraiment yàgg nañ koy tënk di ci taxaw depuis 2009 nga ñëw accéléré ko dox ci dox boo xam ne nii moo war a bi tey président Abdou dañ lay félicité parce que toujours sa wax lii rek nga mës a bëgg xam naa tey moom sa xol sedd na quoi vraiment ñu koy bokk di ko rafetlu président Ndiogou vraiment ñuy félicité ñëpp waa fédération bi su ma limee damay juum parce que it vraiment mais bépp président boo xam ne ñëw nga fi taxaw nga fi ñu lay ziar di la gërëm di rafetlu jotaay bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa fédération bi di nuyu waa Thiès boo di rafetlu initiative bi bon man bi ma taxawee nii sax sama xol dafa tooy parce que li ma gersu lépp mu nekk ay terre nekk ay nit ñu am personnalité. nekk ay nit ñu am personnalité loolu mbégte la ci man parce que bu ñu nekkee ay ndaw toll fii ñu toll yàlla suturaal si li ñu am ci métier mi te mag ñi taxaw waral ko loolu mbégte la lii ñu démarré nag fii Mbour maa ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko eggale dem Tivaouane def ko fa dem Thiès def ko fa et mu continuer ah yàlla nañ ko yàlla defal lépp lu ñu bëgg ci métier mi yàlla nañ ko yàlla defal initiative bi rafet na président Seck ñu ngi lay sant bu baax comme ni ko Mor waxee ci loo lu mu yàgg bëgg moo ngi nii yàlla nañ ci yàlla jàppale ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi tàllal suñuy loxo nag ci seen kanam di leen wax ne pare nañ ci foo leen ci pare rek ñu ànd ak yéen. Mbour pare na pour topp ci ginnaaw Thiès comme ni Thiès nekk ci région bi ñu ngi leen di sant bu baax di wane ne cër bi jox ngeen ñu ko bu baax a baax ñu ngi leen koy dellu jërë ngeen ja maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu jotaay bi man la aadama Faye di président secrétaire Ngaparou. di leen remercier bu baax macha allah jotaay bi am na solo lépp loo xamante dégg nañ ko fi am na solo di wax ne euh, yeex na yeex na ci département de Mbour parce que mboolo booloo mooy doole te yaakaar naa ne bu ñu boolooyee lépp lu ñu bëgg rek buñ ko songee dinañ ko daan